population bi nga xamante ni bi bi ñu sampee suñu programme dem seeti leen wax ak ñoom ñoom dañoo nangu euh, ànd ak ñun ci lii lu day nii tous les bureaux de vote tous les centres vote yi nekk mat na fa ñu gañe ko gañe mu jaay caw gañe këri kaw loolu rek doy na kontaan ak yeneen résultats yi am yëpp te muy ñëw ñu xam ni affaire bi mas masé na ba nopp Euh, maintenant euh, victoire xëy na suñuy militant nañ ko am kontaante suñuy militant nañ ko am mais ñun bis ni ki tey jàmm jeex na pour ñun ndaxte li ñu wax dañ ko bëgg a def te def ko àndul ak ay caaxaan man moom ma maire bi euh, ñi àndoon ak ñun moomuñu maire bi maire bi képp ku yeewoo Thiès Nord yaa ko moom ah. muy liggéeykat bi muy mindaan bi muy maçon bi muy. dëgg la ñoom ñoo ko moom waaw dëgg la monsieur le maire muy enseignant yi muy élèves yi muy jigéen ñi ñoo ko moom. bu ñu fa demee war ñoo am jàmm lu dul ñoom ñu ngi seen jàmm ak salaam kon ñoom tant que nekkuñu ci jàmm ba mat ñun du ñu nekk ci jàmm. kon yeneen gox yi ñoo nem loolu leer na mais nag dañoo jot information comme que waa APR comme li ñu tàmm def rek ñi ngi préparé ay victoire yu ñuy war a déclarer 4 heures du matin li leen di xamal mooy li leen mayoon ci présidentielle ba. li ñu leen mayoon ci présidentiel ba duñ leen ko may fii victoire yu amul benn werante on veut les avertir bu fekkee dañoo yaakaar dañ leen bàyyi ñu caaxaan ñu ne ñoom ñoo dëkk di ko soxal bu baax a baax a baax a baax dañoo xeex buddi liñ fi nekk woon ñoom sànni ci àll ba duñu nangu qu'il passe par la fenêtre ñëw di tricher wala ñu indi ay résultats on les avertit daanu nañu nañ am ngor sax ngor tuuti tàmbali ko ci tey daanu nangu nañu bërëngu nañu suuf ba weex tàll. ndax boo seetloo yenn gox yi ci senegal yow yi am ci ndam bu baax mais dama ni ñun suñu bët mosut a tegu ci présidentiel parce que dafa am benn wurukat bu tudd Macky Sall bu nekk ci dëkk bi sàcc na élection yi 2019 gañe ko ñu bàyyi toog ci saan mu yaakaar ni ay yàmbar ak ay yu kenn xamul ñoo fi am xam lu ñu koy xamal mooy trois moom xam na ni julli it ñaari rakka la moo ko waxoon. julli it ñaari rakka la. waaw tabaski ak korite soppeekuwul ñaari rakka la. <laughs> bis bu fi bëggee indi julli gi bees la. bu ko fi indi julli ta it ñetti rakka du ñibbeeg ay marakis. <laughs>